dali nay jàmm ñu ànd xëy yër yéene kaay xëyee xëyandoo lii raam sa ñag ba la jëm te bu fa amee kër du baax yéene kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamalaan ñu Sénégal jamono ji am na lu garaaw lu yéeme lu doy waar loo xam ne maanaam ma ngi yoot Sénégal li nga xam ne moo xewoon na sud africain soo muy tuule dina xew ci réewum Sénégal ndax li tax mu xew ci réewum Sénégal lépp ma ngi nuyoo yéene kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamalaan ñu lu jëm ci état d'urgence bi nga xam ne yokk nañ ko ci réewum Sénégal am na ñenn ci askan wi jamono ji maanaam nee nañu mënatuñu ko wéyal wéyaale mënatuñu ko wéyaale te duñu ko nangu benn yoona yéenekaay gi nee na Touba ak Diourbel démb tàng na jër te transporteurs yi maanaam ñoo ko tàngal yéenekaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal naan ñu lu soxal wàllum couvre-feu bi sax bëri na ci askan bi ñoo xam ne maanaam wu ñu ko yéenekaay gi du l'Observateur mu ñu xamal naan ñu en tout cas li am ba des couvre-feu beeg état d'urgence bi état bu Sénégal war na see jël ay matukaay ndax li nga xam ne moom lañ nemmeeku maanaam si bëccëgub démb bi doy na waar ndax Touba di di Tamba di Thiès di Mbacké dëkk yi yëpp démb maanaam safara si mel na fa tulleeg màlle jàppante bu doywaar bu metti bu tàng te yàgg moo am diggante askan wi ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi maanaam di sànnante ay grenade lacrymogène ak i xeer di taal ay pneu yéenekaay gi nee na la ko waral mooy ñenn ci transporteurs yi ñoom nee na ñu mënatuñoo nangu transport interurbain bi maanaam ñu koy tëj ñenn ci askan wi nag li ñu mënta wëyaale maanaam mooy état d'urgence be couvre-feu bi nga xam ne moo nekk ci réew mi yéenekaay gi du l'Observateur mu ñu xamal la en tout cas li ambade sall mooy ñaxtu yu commencé commencé na ñenn ci askan wi nag li ñu xam le nee nañu dañoo sonn ñi si des nee nañu dañoo xiif agence yu Sénélec ak poste finance yi nekk ci Mbàkke Touba ñi nga xam ne ñoo doon manifester ni ki démb maanaam dañu ko saax-saaxe caxti-caxtee ko ba maara détaali yéen kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal lañu xalif général des Mourides Serigne Mountakha ba Bassirou démb ci guddi mbir mi dafa tàng jër ci tuuba maanaam fenn fu nekk di boy xalifa bi moo yëkkati tànki boppam dem ba ci jumaa ja wax wi na leen ànd leen akub dal danañu waral yéen kaay gi de las mu ñu xamal na ñu tiwaawoon ak sa diwaanu Thiès foofee tamit maanaam manifestation yi bëri woon na fa loola am na sax ab commandant boo xam ne dañu koo daal di blessé ca diwaanu tiwaawoon bëri na nag ñoo xamante ni teg nañu leen loxo las yéen kaay nee na chauffeur yi nga xam ne ñoo nekk diwaanu Ndiassane diwaanu Touba diwaanu Tamba diwaanu Mbacké nee nañu mbir mi mënatuñu ko wéyaale yéen kaay gi di Vox Populi ak réew mi quotidien ñu xëy di ñu xamal naan ñu ras-le-bol généralisé loolu la ñu gis ci réewum Sénégal maanaam réew mi fenn fu nekk jamono ji am na ñu fay wane seen bopp yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xamal laan ñu bu ñu waxantee dëgg maanaam mbir yi commencé na ñaxtu yi jamono ji ñenn ci askan wi nee nañu mënatuñ ko muñ jàngalekat yi nekk sa diwaanu Ziguinchor ñoom nag mer ñu ba maarale taal yi ñoom sax nee nañu état bu Sénégal maanaam dele na sacrifié yéen a kaay gii di grand place mu ñu xamal laan ñu jàngalekat yi kay jamono ji seen yaakaar ci boppam moo tas ndax nag dañu leen a jëlee Dakar maanaam mbogo mbogo leen yóbbu leen ba pare jàng amul ñenn si ñoom amee coronavirus journaliste bi di kay ne bu ñu waxante dëgg ci réewum Sénégal Macky Sall mi ñu dénk réew mi moo mënul ñu ne ko lan la war a def mu ne démissionné yéen kaay gii di Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu yi nga xam ne moom lañ jàppoon ne njàng mi dana commencé waat ak dàq gi nga xam ne maanaam am na sa loolee bëri na nag loo xamante ni wane nag ci ak yaafuus ak ak lajjate goo xamante ni am na ci njàng meek njàngale ci biir réewum Sénégal matukaay yi état bu Sénégal waroon a jël ngir nag njàng mi commencé waat amul benn matukaay boo xam ne nguur gi jël na ko ci diwaanu Ziguinchor lu toll si juróom-ñeenti téeméer ci ay jàngalekat yoo xam ne dañu leen a wax na leen ñëw leen ñu def leen ay test ñoom dañoo lànk kandaare yéen a kaay gi de laas mu ñu xamal naa ñu lu jëm ci woppi coronavirus jamono ji nag daan nay bëri Ziguinchor loola ndax ginnaaw Dakar ak Touba Ziguinchor moo jël troisième incompétence bu rëy la état bu Sénégal wane ci lu jëm ci njàng mekk njàngale me yéen a kaay gi de ñu fekk fa Abdoulaye Ndour moom nag ab jàngalekat la la mu xamle nee na jamono ji dañu leen di stigmatiser maanaam dañu leen di wax muse corona te loolee lu doy waar doy waar la lii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu jàngalekat yi lu ñu yëkkul Mamadou Talla dañu ko fàtte nee na ñu mënul nee na ñu xamul dara nee na ñu dafa war a tekki ndombal tànkam yéen a gi du l'observateur mu ñu xamal lan ñu en tout cas li am ba des woppi coronavirus bëri na ñoo xamante ni ñoo ngi wéy di si am ay jafe-jafe ndax am na benn chauffeurub camion boo xam ne nee na jamono jii maanaam dërëm yoratu ko jabaram mooy dem di mbindaanu la muy fayeeku si la ñuy dund am na ci koo xamante ni king fat place lay liggéey moom nee na jamono ji sax dafay niru a kaay gi Quotidien xëy na ci Aly Ngouille Ndiaye ak yi nga xam ne moom la nekkee ci réew mi journal bi nee Omar Sarr mi nekkoon PDS dafa amee coronavirus yéen a kaay gi di réew mi Quotidien mu ñu xamal naa ñu aar li ñu bokk ak ñoo lànk niki démb ñoom nag ñoo ngi sàkku bi ñu daal di koy jële ci réew mi Abdou Karim Gueye xurum xàq mi nekk ci kaso bi maanaam ñu daal di ko fay génne yéen a kaay gi di réew mi Quotidien ak Vox ak L'As mu ñu ak Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall tey bi nga xam ne moom la ñu bëgg a defal Aminata Tall mi jiite woon conseil économique social environnemental loolee état bu Sénégal tegu ko fenn loolee baaxul ci réew mi te loolee duñu ko nangoo yéen a kaay gi de Les Échos mu ñu xamal ñu contrat bi dox diggante Sénélec ak Akilee mbir mu doy waar moo fa xewoon ndekete conseil d'administration bi réunion ba ñu amaloon ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru décembre atum 2018 Makhtar Cissé wanu leen woon contrat bi la mu leen wanoon mooy ab concept de projet conseil d'administration bi ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mai bii ñu génn la ñuy di gis contrat bi yéen a kaay du sunu làmb ñu fekk fa Papa Sow nee na nag sama combat bi waroon a dox diggante man ak Siteu dañu ko dàq ngir Covid bi waaye jamono ji pare naa ngir defal ko bagaas